mbokk jël ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen chaîne bi la ngeen nag taataanay fii xibaar jëm ci wàllu tàggat yaram dinañ ñëw ci tafatin ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ak làmb yee mu taxawal moom de Boy Ndiaye ak retouram ba Baye Ndiaye ngeen baal ma laata loolu jàpp leen nag fële ca Thiès à l'honneur ce dimanche nag ki nga xam ne mooy cere cànq la cere sax caax à l'assaut de Morsar donc nag ñaari ndaw yooyu ñoo war a laalante foofee nga xam ne moo di ca Euh, Thiès Lac de Guiers numéro 2 bande les muscles prêt à montrer un autre visage loolu di kàddu yi nga xam ne yëgit na ko moom mu ñu sukkandikoo ci journal bi di sunu làmb moom lag de Guiers numéro 2 Abdou Ndiassé nag Guiro sera ce dimanche revanche par euh, procuration site ak Zoss euh, noonu la ko journal bi di sunu lamb xamle ba tey nag diggante ki nga xam ne moo di Siteu bu Ngor ak Alioune Sarr junior ni ki samedi bi lee ñu ngi koy xaar mu nekk nag ak confirmation wala sax ab relance lay doon ci diggante ñaari ndaw yore di Siteu bu Ngor ak ki nga xam ne moo di Alioune Seye junior ni ki samedi bi lee Euh, bu ñu jógee foofu nag dinañ wax ci li nga xam ne moo di Tapha Tine Eumeu Sène Marley ak Mbaye Gouy Gui Coly ak nga xam ne moo di Thiat Daouda ak yeneenu lamb yamu ci toftal moom ba Ndiaye nag daal di ne dikkaat ak doole ju mat sëkk diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène nag attention danger noonu la ko journal bi lee di sunu làmb xamle muy diggante ñaari mbër yi nga xamante ni kenn dootub naataale seen jaar-jaar ci làmb ak nag ñaari mbër loo xam ne seen combat du yomb benn yoon muy diggante ki nga xam ne moo di Tapha ak ki di Eumeu seen borom tay si mu nekk nag ak danger laat bu ñu war a moytu bu ñu sukkandikoo ci journal bile nga xam ne moo di sunu lamb qualifié de Thiat Daouda Fall un régal pour les yeux donc nag ñaari ndaw yooyu ñu mën caa xaar euh, akub régal daal ci ñi nga xam ne ñooy euh, toog di seetaan lamb ju nu euh, jàmbaar ak ki nga xam ne moo di ndigal nee na ça va ci diggante ñaar ñooñu diggante ki nga xam nag moo di Weuz ki nga xam ne moo di ndigal. ñaari ndaw yoo xam ne seen combat laata mën na caa xaar combat bu saf-saf bu métti euh, ba yegg ci a jërë ngeen jëf mbokk internet di lii moo kon li ñu leen doon ci xibaar jëm ci wàllu tàggat yaram di leen jox dig daje léeg-léeg ak yeneen i vidéo ak i xibaar waaye laata loolu de woy di like woy leen di abonné ci seen chaîne Sport Life 221 14 régions du Sénégal foo leen mënta nekk cant ak ngërëm ñeen na leen activer seen cloche su ko defee lu ñu dugal ci vidéo ngeen bokk ci ñi koy njëkk a jot jërë ngeen jëf 14 régions du Sénégal àdduna wër nga këpp foo leen mënta nekk cant ak ngërëm ñeen na leen jërë ngeen jëf